بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاري الشريف رضي الله تعالى عنه السلام عليكم ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di bisu àjjuma waaye dellu di sant yàlla moom mi nga xam ni ci hikmaam la waxe wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith su ko defee itam nga dégg ci ni yàlla moom dafa yaatu te aussi moom yàlla dafay yaatal moo tax bëggul kuy xatal ndax yaatoom moom yàlla moo tax mu wax ni bu la joxatee liy dellu ci si ngëneel ak ngëneel gu mu mënta doon mu ni soo koy waxtaane waxtaan ba dana ko mën a jàppe cant wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yàlla nee na bu la joxee ngëneel ngëneel ga lu mu yaatu yaatu ak lu mu mënta doon nee na soo koy waxtaane moom yàlla dana mën a considérer waxtaane bi nga koy waxtaane ni cant la ndax yàlla dafa bëgg ku reconnaissant waaye mu mel ni itam yàlla jagle bi muy defal mbindéef bi mi ngi bokk ca na mu ko reconnaître comme jaam yàlla ni mu toll ak capacité su reconnaître mbindéef ni ko sama jaam nga rek mbindéef bi war na xam ni am na lanoo tuddee sat kon am na sax ci digganteem ak borom xakim yi wax nag ni su la sa borom sagalee ba noppi nee ñu la ca des mooy nga sagal sa bopp waaw te na ngay sagalee sa bopp ginnaaw bi la sa borom sagale mooy li mu wax ni moo la fi indi te mu di jaamu ko su boobaa ñu ni nga motal jaamu ji nga motal jaamu ji waaye nga defe jaamu ji aussi ci turam nga motal jaamu yàlla ba noppi defe ko ci turam moom yàlla su nga defee bu ñu waxee nga motal jaamu yàlla mooy nga fexe ba la mu santaane nga nekk ci la mu tere moom yàlla itam nga bàyyi ko waaye loo ca desit nga delloo ko ci moom te delloo ko ci moom mooy fexe ba bo doo naw mukk sa jëf lu am solo la lu am solo la mooy fexe doo naw sa jëf maanaam loo jaamu yàlla rek nga ñaan ko mu bañ la àtte ci sa jëf te àtte la ci yërmande kooku ku koy def du tarxiis mukk ndax ku ñu àttewul ci sa jëf doo tarxiis moo tax nitu yàlla yi rek di ko ñaan lu nu jaamu rek ñaan yàlla ni ko dimbali ñu bu ñu àtte mukk suñu jëf na nga ñu àtte rek ci sa yërmande su ko defee dañuy fàtte seen jëf yaakaar yërmande yàlla waaw te boo fàttee sa jëf yaakaar yërmande yàlla loolu mën na la dimbali ba doo trébuché mukk waaw kuñ la fekk rek ci siraatal mustaqim ngay nekk su ko defee itam yàlla moom mbooloom lu jàmm di soxla mi ngi ci moom borom lu jafe nag ak lu yomb waaw lu jafe ci jamono ak lu yomb ci jamono benn bu ca nekk lu ci jaam bi soxla mi ngi ci loxo yàlla boo soxloo sécurité mi ngi ci loxo yàlla boo soxloo justice alaysa allahu bi ahkamil hakimin boo soxloo wërsëg mi ngi ci loxo yàlla boo soxloo wér mi ngi ci loxo yàlla waaye lu ci nekk itam yàlla dina la natt ba xam doy longu ko ba noppi laata muy jokkalanteeg yow la lay soxla waaw moo tax su boobaa doy loo yàlla dafay doon farat su loolu amee doy loo yàlla dafay doon farat waaw ndax lu yàlla tënk rek bëgg ko jox jaamam dafay bàyyi ba xam ndax jaam bi doy loo na ko gën a moom ku bëgg ku ko doy loo la moom yàlla wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ni ko fa in tawalaw fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wax na ko yonent bi nee na ko bu la ñëpp dëddoo wan la gànnaaw yow am nga gànnaay te sa gànnaay ku ko am du wéet mukk yonent bi ni ko luy sama gànnaay mu ni mooy nga wax leen ni man nga doyloo waaw mu ni mooy nga wax leen ni man nga doyloo doonte ñëpp wan nañ la gànnaaw waaw sa noon yaa ngi taxaw sa ennemi yaa ngi taxaw ñi la bëgg sàkkal pexe ngi taxaw waaye yàlla ni yonent bi loolu yëpp bu mu la intéressé li lay intéressé mooy wax leen ni doyloo nga fa in tawalaw fa qul hasbi allah su ko defee mu ni boo ma doyloo rek da ngay nekk ci garanti looloo tax doyloo yàlla di am solo doyloo yàlla di am solo mag ñi dañ ko miinoon bu ñuy génn bu ñuy génn di dem di xëy le matin ñu wax bismillahi tawakkaltu ala allahi wala xawla wala quwwata illa billahi alil azim parce que yëg nañ ni ngànnaay la ngànnaay la ci ci wane ni doyloo nga yàlla xam nga ci wax bismillahi tawakkaltu ala allah kooku dara mënatul nekk ci kanamam lu dul ni yàlla ndax ci turu yàlla la tàmbale waaye ci yàlla la wàkkirlu ci turu yàlla la tàmbale waaye ci yàlla la wàkkirlu bismillahi tawakkaltu ala allah moom ci turu yàlla la tàmbale waaye aussi ci yàlla la wàkkirlu ba tax ñu def ko ñoom seen ngànnaay dellu ni wala xawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waaw soo demee ba xam ni amul lu mën a defar ñu ni jàkk na amul lu mën a lore ñu ni loru na amul lu am doole am mën-mën ku dul yàlla su boobaa yow wàcc nga te ñoom dañuy wax ca baat ba ni gis nañ ni amul luy defare wala luy lore wala lu mën a organiser wala lu mën a désorganiser ku dul yàlla loolu delloo leen ci wéetoog yàlla loolu delloo leen ci wéetoo gi yàlla te muy benn degré ca zikr te muy benn degré ca zikr ala bi zikrillahi tatmainul qulub loolu di benn degré ca zikr mu delloo leen ci wéetoo gi yàlla su ko defee nag doyloo boobu mooy ñëw yàlla nangu ni kat loo jëfati moom yàlla dina ci dugal loxo waaw te jaamam nga di waaye mu ni loo jëfati rek dina ci dugal loxo ñu ni lu tax yàlla ni ndax sama jaam du ma gën a gore mukk waaw man mi boromam bind ko bind la noo tuddee wàllu ngor mu ni kon jaam bi du ma gën a gore mukk mu ni moo tax lu mu duggal ci rek ma dugal ci sama loxo ñu ni lu tax mu ni ndax daf ma doyloo mu ni ndax daf ma doyloo moo tax doyloo yàlla lu am solo waaye itam lu jafe la lu jafe la ndax boo bëggee doyloo yàlla faw nga xam ci paramètres yi nga xam ni benn bu ci àndul ak xikmaam moom yàlla te muy ànd ak principe doyloo ba dafay des waaw ndax ki war a doyloo yàlla faw mu xam ci yan cadre la yàlla di waxee ni jaamam doyloo la te cadre yi mënoo ko organiser lu dul ci biir zikr cadre yi mënoo ko organiser lu dul ci biir zikr parce que bu ñu waxee wàllu zikr am na ñu bari benn côté bu woyof rek lañ ciy gis côté bu woyof bi mooy rek ki jël kurusam rek tànn benn turu yàlla wala tànn benn salaatu di ko zikr wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun kooku kenn du ko bañ ndax zikr moom bu yaatoo rek bu yaatoo te ànd ak teggin yàlla dina ko nangu waaw zikr bu yaatu ànd ak teggin Mawlaay Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif nee na du rek nga ni maa ngi zikr lu bare nee na mooy nga yaatal sa xol ci zikr bi ba noppi parce que bis bu sa xol yaatoo nee na sa yërmande dana yaatu te bu sa yërmande yaatoo ku nekk ngay dund ak moom jàmm nga ko yéen waaye bu sa xol xol xatee du enregistré zikr moo tax mu ni yaatal zikr du rek xëy ba suba di def benn dog boo xam ne huit heures nga ko tàmbali ba guddi lay jeex nee na loolu tuddeewuñu ko yaatal zikr yaatal zikr mooy looy jàng nga jàng kat teggi te mooy looy jàng rek nga jàng kat xol bu sell looy jàng rek nga jàng kat làmmiñ bu sell te itam Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijaani nee na jàng dara ak làmmiñ bu sell nee na mooy jàng loo xam ne am nga ca ndigal te doyloo ko ndax nit dina am ndigal ci lu mu doyloowul nit dina am ndigal ci lu mu doyloowul léeg-léeg nit di zikr salaatul fatiha waaye fekk bu koy zikr xelam sax nekkul ca salaatul fatiha ba muy jàng ma nga nekk ca xëy na beneen talsam ba mu dégg te xamul na muy def ko jot ca kooku boo xamoon salaatul fatiha da ngay xam ni lépp gi waaye bu sa xol yaatoo luñ la jox rek nga jublu ci jaamu yàlla da nga koy doyloo waaw loo am ndigal rek nga jublu ci jaamu yàlla da nga koy doyloo ndax gis nga xadara xayb xadara xayb su ni nangu zikr yow mi jàng benn salaatul fatiha ak yow mi jàng junne salaatul fatiha atte wuñu nombre usité bi ngeen jàng li ñuy atte mooy kenn ku nekk ci ban yéene ak ban teggin la ko jàng kenn ku nekk ci ban yéene ak ban teggin la ko jàng waaye atte wuñu nombre usité bu ngeen jàng ci ban yéene ak ban teggin nga ko jànge ndax jàng nga ka xel mu sell ndax jàng nga ka xol bu sell ndax jàng nga kaat xel mu dal ndax jàng nga kaat xol bu dal loolu bu amee ñu yaatal ko benn bi mën a représenter ay millions waaw waaye bu loolu amul bu loolu amul loo mënta jàng itam ñu jële ko rek ci xaal bi nga xam ne moom la ñuy àtte te xaal bi ñuy àtte mooy xaal bi nga xam ne dañuy xool la leen ca neex ñu note waaw la leen ca neex rek ñu note ko waaw te su boobaa dootul am dootul am laaj dootul am laaj lu leen ca neex rek ñu note ko ndax léeg-léeg nga dégg ku wax ni am na benn sirru bu mu yor léeg-léeg sax nga tuddee ko ñoom talsam nga dégg nu ni boo ko jàngee dana représenté nangami million salatul fatih dana représenté nangami million jawharatul kamal te nga dégg te ñu ni jàng bu yomb la mais sirru la wax wax wax man léeg-léeg am ñu ma ko laaj waaye dama leen di wax ni mënuma seede ni lu valable la mënuma seede ni valable la li may xaar daal mooy sirru bu ñu jàng trente mu représenté un million de jawharatul kamal damay wax ki kay jàng jàngal ba noppi ma xool leen bu ma la fi gis ba léegi ak ni nga mel gisuma xaal ci yow gisuma melokaan bu changé ci yow ma xam ni représenté wul noonu waaw ndax foog naa ni ki jàng un million de jawharatul kamal boo duggee néegam doo ko fa fekk jawharatul kamal ci benn place rek nga jàng ci mille jàng ci deux mille ba noppi toog bi xoole nu jox la sa njàng nga naan li nga jàng kon dose bi des na ba tax nag boo ne sirru yooyu am nga ko jàng nga ko ba noppi ñu gis la même personne waaw nga pare añ pare reer pare tëdd nelaw nga ne ah kon des na ndax un million de jawharatul kamal kenn mënu ko jàng ba noppi di nelaw mënul lekk ci ñi xam mystique gu tur yàlla ci ñi xam mystique gu salaatul fatiha ak jawharatul kamal dafay baat yoo xam ni kenn mënu ko tënk ci ci ci ci ci dara loo xam ni dana représenté leneen loo xam ni xaqiiqam nekku ci ndax diisaay bee tax diisaay bee tax moo tax ma ni ko ci bëgg noppalu naka Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani daan jàng rek bu yóbboo jàng ko noonu donte làmmiñ yi yamul waaye répété rek jaare ca baat ba la mu doore ca allahumma salli ba ba muy jeex waaw su ko defee nga noppal waaw ndax réalité bi itam xaqiiqa la waaw te xaqiiqa yàgg naa koy wax ni ku nekk ak xaqiiqa bi la yàlla bi la yàlla barkeel waaw te ñoom seen pouvoir may na seen xaqiiqa doole bu tolloo amul beneen xaqiiqa bu ko mën a sut ndax xaqiqatu muhammadiya ak xaqiqatu ahmadiya rek ñoo am ñaari xaqiqa yooyu soo ko delloowaat it benn beneen xaqiqa bu nu tudd ci biir xaqiqa yooyu nga génn moo tax ñoom lu nu tënkul rek kenn du ko tënk waaw waaye su ko defee itam nga xam ni lay tax yàlla lay tax yàlla nangu doyloo bi nga ko doyloo il faut mu def taxaw seetlu ci sa organisation yow sa dund wàll bu mu ci am moom yàlla ndax xam nga ki ni doyloo naa yàlla te yàlla di représenté la gën a néew ci dund kooku bu ko waxee kenn du ko gëm boo doyloo yàlla muy dëgg sa dund suñ ko divisé woon par dix mën na ni neuf par yépp ci borom bi lay jàll waaye niñ koy delloowee ci borom bi du tee nu organiser ko du teelu organiser ko te kooku say kutaar bi yooyu ñoo ko mën a organiser ñoo na mën a organiser sa dund ba lépp nga delloo ko yàlla te du wàññi dara ci sa dund zahir te du wàññi dara ci sa dund zahir ndax organisation la laaj moo tax ñoom ci seen tarbiya lu nekk ngi ci ci seen tarbiya lu nekk ngi ci doxee leen ni jaaral ni organisé wul ni te kat lu tarbiya bi di rëy rëy lu muy diis diis du weesu salaatul fatih du weesu jawharatul kamal du weesu istighfar du du weesu basmala du weesu la ilaha illallah ndax ñoom gis nañ ni lépp ngi waaye dañ lay organiser nag wàll bi nga àttan ña ca kawit ñoom organiser wu ci wàll bi ñu àttan ñoom waaw ci wàll bi ñu àttan ñoom ñi organisé wu ci seen wàll waaye ña ca kaw aussi organisé wu ci seen wàll Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Sharif wax na ko nee na tarbiya tarbiya bu nangu ci jëmm nee na yombul waaye li muy jafe-jafe nee na wër ñetti leer yi nga soxla pour mu def la wëliyu kaamil ñetti leer yi nga soxla moo ko gën a jàpp xam nga nga dégg nga ni tarbiya bi kat mot na ci diw xam nga loolu yombul ndax da ngay dégg nu ne ah yoonu tarbiya bi dafa metti te boo deful ndànk tarbiya ndàngam ndànk waaye Cheikh Tijani nee na lu muy jafe-jafe yépp nee na kat ñetti leer yi ngay wër ñu def la waliyu kaamil ñoo ko gën a jafe ñetti lumière la nit ki di wër pour mu def ko waliyu kaamil benn lumière bi mënoo ko jot lu dul fajar benn bi mënoo ko jot lu dul guddi gu xaaj beneen bi nag may na yàllaay xol xol bu ko neex mu def ko ci mais ñett yi la ñuy wër benn bi mënoo ko jot lu dul fajar waaw ak lu sa pexe bari bari lu sa jaamu yàlla bari bari mënoo ko jot lu dul waxtu fajar waaw beneen bi itam loo jàmbaare jàmbaare ci diine mënoo ko jot lu dul guddi gi xaaj beneen bi nag doon la waaw yàllaay xol xol bu ko neex mu def ko ci te moo mën a def nit ki waliyu kàll wala ki nga xam ne guddi gi yëpp bu tëddee benn yi nag day nelaw ba suba kooku kooku leer googu abadan bis du ko jot bi muy jot bu guddi gi xaaj du ko jot waaw moo taxoon mag ñi tàmmoon tëdd ba guddi gi xaaj ñu jug dem jàpp ji ba set julli ñaari laaj mag ñi dañ ko daan def deux heures du matin fu mu jotee rek nu du ñu jug dem jàpp ji daal di julli ñaari laaj même bu ñuy tëdd ñu tëdd daal ndax lu jafe la waaw lu yomb la ci wax nii ak dinaa ko def waaye lu jafe la ki tax ba jàppanteeg nelaw ba yaramam commencé di reposé wu pour mu dal di nelaw loolu jug rek dem jàpp julli ñaari rakka lu jafe waaw su paree tëddaan loolu lu jafe man ngi dañ ko daan def parce que yëg nañ ne am na leer goo xam ne mënoo ko jot lu dul guddi gi xaaj kon boo dul jug benn yoon guddi di julli ñaari rakka wala di zikr wala di jaamu yàlla kooku abadan boobu doo ko jot xanaa benn beneen bi itam mooy dañ daan moytu fajar fekk leen ñuy nelaw dañ daan moytu fajar fekk leen ñuy nelaw ndax sooy nelaw waxtu fajar da nga tardé waxtu julli suba soo tardé waxtu julli suba da nga tardé loo xam ne dootoo ko mën a dabaate ndax lañ fa waroon zikr yépp ci wàllu wasifa bi te ñu ëmb ko ca da nga ko tardé waaw ñu xam ni ñoom it bu la waxtu yooyu fekkee ca fajar yaa ngay nelaw leer boobu doo ko jàpp waaw bi ci des nag ñu ni doon la doon la yàllaay xool rek yàllaay xool rek inna fadlan bi yadihi llahi yutihi man yasha waaw yàllaay xool rek ku ko neex yutihi man yasha rek waaw ci ngëneelal yàlla mu xool ku ko neex yàlla xool ku ko neex mu def ko ci yow parce que boobu mooy combler mooy combler vide bi desoon yépp waaw waaye xanaa bu dee benn bi may la moom ñaar yi moom sa pas-pas mën na la ko may te mooy moytu moytu waxtu salaatu ba jamono ji ñuy wax asalaatu xayru min an-nawm moytu waxtu boobu fekk la ngay nelaw waaw waaye fexe itam ba guddi gi guddi gi lu mu yaatu yaatu itam nga am waxtu boo ko doge sa nelaw rek jàpp julli ñaari rakka ndax ñett leer la Cheikh ko wax nee na kenn mënu ko kenn mënul doon waliyu kaamil te jotoo ñett yooyu mën nga doon waliyu nag ndax xam nga wax waliyu kaamil ak waliyu yi ba léegi ñu bari xàmme wuñ ko waliyu kaamil mooy waliyu bu mot sëkk waaw mooy waliyu bu mot sëkk te boo motee sëkk sa marta ba mot sëkk sa wilaaya mot sëkk mu ni ñetti leer ngay wër benn bi fajar nga koy jot benn bi bu guddi gi xaajee nga koy jot benn bi may la waaw waaye mu ni bu dee benn bi moom may la xanaa ñaari moom war nga ci mën a jël mu ni kon moytul fajar fekk la ngay nelaw waaye mu ñu moyetul aussi nelaw guddi gi yëpp ndax lu jafe la nga nelaw ba deux heures nga jug jàpp julli ñaari rakka boo ko déggee nag da nga naan yomb la waaye boo demee ba toll ca da nga yëg ni lu jafe ndax ca waxtu boobu nga tëdd fekk na sa yaram dallu bi fa lay commencé di reposer nga jug jàpp ji julli ñaari rakka lu jafe la waaw dee miinoo ko su dee miinoo ko lu jafe la mën na nag yomb nii waaye kooku boo ko dul def leer gi ngay jot guddi doo ko jot abadan ndax ndax du leer gooy jot ginnaaw gee wala leer gooy jot vingt une heures wala vingt trois heures deux heures du matin de minuit trente de une heure trente à deux heures du matin kon lu jafe la boo bëggee waxtu boobu fu mu jotee nga julli ñaari rakka est-ce que sa naafi la lu jafe la waaye lu baax la itam lu am solo mag ñi boo daan am xaajo boo mënul faj sax moom lañ la daan digal yow da ngay bàyyi ba guddi waaw ba guddi gi ñu ni ñu ni boo demee ba guddi gi xaaj waaw wala ba suuf sedd ñoom loolu lañu ko daan waxee boo demee ba suuf sedd ñu ni nga jug nga jàpp ba set waaw ñu ni nga julli ñaari rakka soo paree nga tàllal sa loxo ñaan yàlla dagg bi nga dagg sa nelaw ak période boobu ñëpp a ngi tëdd waaw mu ni foofu loo fa ñaan rek yàlla nangul la ko waaye fekk na lu jafe ci ku ko miinul ku ko miinul lu jafe lay doon ci yow ci waxtu boobu waaye waxtu bu am solo la mag ñi dañ ko daan digle guddi ak bëccëg waaw dañ la daan wax boo amee soxla bu jàmm ñaan sa heure boobu daggal sa nelaw deux heures julli ñaari rakkaat ñaan soo amee xaajo bu mënul faj ñaan ko waxtu boobu waaw daan nañu wax ni même bu la ay nit sonalee sax te xamoon nooy def ak ñoom ñaanal seen mbir waxtu boobu waaw ñu ni waxtu la boo xam ni loo ca ñaan nañ ko ñaanalee yow te loolu te loolu te loolu fa la ngëneel yam te loolu fa la ngëneel yam waaye du jafe la surtout ci jamono ji jamono ji yombatul ndax xam nga gis bi ci basan moom damay xool ba yàgg ma ni moo tax sofiyanke yi sax ñoom jugoon guddi yomb leen ndax sofiyanke bu tëdd ci basan kay waaw basan boo xam ne ci dër la te reeroo ba suuf waaw yaa ngi fanaani bërëngu bërëngu kooku bu deux heures jotee da ngay jóg facilement waaw mais fii da ngay tëdd ci benn matelas orthopédique bu nooy boo xam ne waaw taal sa climatiseur mu tiim la daanaka kooku moom waxuma deux heures waaye su la yàlla jàppalewul sax quatre heures doyu daal yaa ngi ci péex mu kenn xamul lan la pour wax la ni moo tax sofiyanke yi ñoom jógoon yomb leen ndax ku tëdd ci basan di xalanku di xalanku ba deux heures koo koy deux heures sax bu jógee dootul tëdd waaye ki nga xam ne moom lan ba mu tëdd ngi nooy mi ngi taal climatiseur am mi ngi jaaxaan mi ngi reer ba suur yenn meew yi ñu ko teg ci wetam mi ngi koy xaar kooku kay mu jóg deux heures kéemaan la sax miracle la pour wax la ni loolu loolu boo ko dul def ci leer yooyu doo ko am mukk waaw Cheikh Tijani nee na leer bi benn bi fajar la benn bi bu guddi gi xaajee la te mooy deux heures benn bi doon te kenn xamul kañ la lu ko yàlla di jox te te yàlla kenn du ko wutal àpp kenn du ko wutal àpp te duñ la wax mukk boo ko defee tel jour wala nombre de jours déedéet duñ la ko wax ñun biñ ci tolloo ci tarbiya bi ñu ko laajee Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani dafa ni ah continuer leen rek yàlla xam kañ la koy joxe leer gi ñu wut guddi dañu ko tàmmoon di jub deux heures di jub deux heures li ma ko def ëpp nay at loolu tax mënatu ma sax ne la guddi ndax loolu waaw te boobu xale la waaye ëpp na at yi at ma teg la ko deux heures fu mu jote mu jub loolu mu yóbbee ba fu mu ne guddi mënatu ma ko ne la waaw loolu day dem ba day toll koo xam ni day mel ni sa guddi sa bëccëg la man guddi sama bëccëg te du koy tàmm te kat leer ngay wut leer rek ngay wut wëroo leneen leer rek ngay wut wëroo leneen moo tax booy wut dara tamit foog nga nangu ci sonn waaw kenn mënul am ci yàlla dara ak kër bu la yàlla mën ta jox te sonn loolu loolu mënul nekk bu la lépp yombee sax pour nga jox ko faw nga sonn waaw périple méditerranée bi Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane def li nitu yàlla yi ni def loolu yëpp la ñuy am am nañ ko ba noppi mais boo bëggee dara ci yàlla il faut nga nangu sonn il faut nga nangu tëdd ci tàngaay il faut nga nangu sonn il faut nga nangu toogaay bu metti il faut nga nangu téye kurus ba sa loxo yi sax mel ni lu karam waaye bëgg li nitu yàlla yépp am te ni nag benn om buy metti moom du la ci fekk waaw te ñoom seen om dëkke metti kooku mënul nekk waaw ba tax góorgóorlu farata la waaw yàlla ñu ko yàlla yaa ngi defal waaw te am ñu ci bàyyi ci bàyyi ci bàyyi yoon ci bàyyi moom la change ci gène asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh